moi xam naa ne xaaru leen ma woon maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax soyez les bienvenus xam ngeen ma man la Pape Sidi Fall euh, man nag dama ñëw tey pour waxtaanal leen ci benn affaire boo xam ne affaire bu bees la bu très spécial bu très très spécial bu Ngaaka Blindé ziar naa leen j'espère que yéen a ngi cool ah looy wut fii <laughs> xamoon naa ne di ngeen poser question mais bon comme professionnel la du ma leen tontu je vais pas vous répondre j'espère que vous allez bien j'espère que tout le monde va bien maa ngi leen di nuyu di leen wax na leen euh, c'est toujours un plaisir de vous retrouver déjà à tous les fans de Ngaaka Blindé fu ngeen mën ci nekk ci àdduna bi maa ngi leen di ziar damay jël live ci kanam tuuti ay gars ñoo xam ne bëgg nañ dugg par exemple en direct mais bon d'abord dañ leen di wax ne leen Ngaaka Blindé soriwul fii ah mu ngi si parages yi il est il est dans les dans les parages euh, dafa am benn affaire bu extraordinaire boo xam ne mu ngi commencé waaj a xew si Ngaaka Blindé mais d'abord du ñu bëgg ñu bëgg gars yi comprendre fan la Ngaaka Blindé jugee ba fi mu toll tey moo tax ñu bëgg di leen waxtaanal ci live bi en fait Ngaaka Blindé est un jeune artiste sénégalais boo xam ne gars yi ñu ngi koy follow et puis il fait partie des jeunes les plus remarquables de sa génération normal il a le talent il a beaucoup de mérite mais Ngaaka Blindé en plus de ça dafa am benn différence bu particulier bu mu am mooy am facilité mais facilité rap boobu Ngaaka Blindé am dafa am benn affaire bu ko ci commencé woon gagné si mooy publique je vais faire le résumé de la carrière de Ngaaka Blindé benn gaynde la boo xam ne mu ngi dëkk Géejawaay mais dëkk Géejawaay jóge si banlieue bi am ay conviction am lu mu war a wax am lu mu war a nettali commencé rab sa ay mbokk sa ay xarit sa ay am di jàmb ñëpp ñu ngi bokkal site gëm la alors Ngaaka di grow di grow di grow ba am benn tour ci Sénégal léegi tour boobu Ngaaka Blindé am li ko ko may mooy hip hop mais bi muy am tour bi fekkul woon moom est-ce que psychologiquement artistiquement en tant que jeune est-ce que pare woon na pour entamer succès boobu yépp nga xam ne rab bi moo ko indi à la base. mu nekk affaire booy nekk affaire jeune mu nekk si koñ bi di rap gars yi di bég muy def tournée di encaisser mani affaire yi di bonde ngaa ko nekk une vraie réalité dans le paysage hip hop au Sénégal ñu dem ba à un moment donné mu am benn tolof tolof bu dugg si life am mu dem jeel bi mu génnee jeel ñëpp di xaar Ngaaka Blindé mu def arène nationale ça c'était un coup de maître de ce qui pourrait euh, ressembler à la réussite euh, parfaite d'un artiste boo xam ne dafa jóge si banlieue ba feesal arène nationale boobu ak léegi amaatul concert je pense arène nationale et pour ça ça chapeau à l'artiste mais pourtant succès boobu li muy bëri bëri ñu bëri si ñu bëgg ak ñi yaakaar ngaa ko blindé si hip hopam ba koy follow ba koy bëggee dañ ko doon wax naan ko booy demal nga joobi demal nga joobi demal nga joobi demal nga joobi alors depuis un bon bout de temps Ngaaka Blindé toog nag def benn re euh, def benn retraite manaam génn si hip hop bi mel na ku si génn mais génnu si dafa retraité dafa def benn retraite du hip hop mu dem taxaniwaat mat mu dem utiwaat yeneen bagage mu dem gën a joobaat mu dem gën a préparé wuwaat ndax li ko koy dimbale mooy après dafay fekk ay nit ñoo xam ne dañu bëgg Ngaaka Blindé di bëgg a gis Ngaaka Blindé si yeneen univers di gis ya Ngaaka Blindé si yeneen level di ko bëgg a gis si yeneen sphère te loolu pour mu yegg si il faut xam na ni liggéey rek moo ko ko mën a yeggaleel su fekkee am nañu muus gis naa ñuy bind sept chiffre sept dafa am muy wax Ngaaka Blindé nee na dafa bëgg changer numéro mais dafa bëgg numéro bu bees bi nekk commencé lu commencé sept mu ne y a sept mois il était injoignable mu ne bu commentaire yi mu posté yeggee 777 dafa am benn affaire bu mu leen di annoncé mais sept yu bëri yooyu est-ce que ça vous dit pas quelque chose mais il fallait que nit ñi xool Ngaaka Blindé dans les yeux en lui disant mais Ngaaka am nga public am nga ay fans am nga gaayu la gëm am nga gaayu la bëgg lan moo des mooy nga gën a joob gën a dolli ñeex gën a dolli karaw parce que booyu Sénégal yu bëri da ngay nekk exemple si ñoom dangay nekk référence si ñoom donc il va falloir que nga gën a joobaat donc il va falloir que mu indi benn affaire bu réel bu palpable bu factuel boo xam ne il faut que nit ñi xool loolu xam ne ah ok ngaaka bi ñu doon dégg ak ngaaka bu bees bi am na lu uute donc mois j'ai écouté son album ma remarqué ci benn maturité c'est-à-dire dafa mel ne booy bi nekkoon booy si koñam di booy boobu dafa dem ba màgg dafa waxoon ne dafay génne album bu tudd AIBD AIDB moom laa koy jàppee kaañ tout le temps AIDB AIDB fan la ci toll est-ce que album bi noonu lay tudd est-ce que tur boobu noonu dafa am beneen affaire bu laxasu ci ginnaaw tout ça va se savoir dans quelques instants En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Ngaaka Blindé est un artiste. Kooka la waaw bismillah non kaay gars yi kenn du la gis. d'accord d'accord merci beaucoup donc euh, loolu yëpp boo calculer. effort yooyu ñu fournir ñu bari mun nañ jàpp ne gars yi dañuy fo du foo dañuy liggéey c'est de bon et excellents dañuy tëju mu jaral leen ñu bind mu jaral leen ñu dugg studio enregistré 77 sons war ci génne juste benn chiffre bu exact ah lan la Ngaaka Blindé di waajal ci kanam tuuti il va poster sur sa page Instagram quelque chose pour. Euh, informé parce que c'est pas à moi moom moo leen digoon dina leen informer information boobu mu waxoon ne dina leen ko jox dina leen ko jox il va vous informer de ça mais li ma bëggoon wax nit ñi mooy il a fallu du temps il a fallu de la il a de la persistance il a fallu de la prestance il a fallu de de l'abnégation il a fallu beaucoup de rigueur pour que gars yi foddat womataat indiwaat Ngaaka Blindé si beneen univers boo xam ne si la ko nit ñi bëgg a gis boo bëggee Ngaaka Blindé da ngay am problème parce que danga naan non mënuma comprendre Ngaaka gars yi di am benn affaire bi te moom mu gën leen ko mérité il a déjà le public il a déjà l'audimat il a déjà l'aura il a déjà tout ce qu'il faut pour euh, nekk M6 bu gars yi gën a bëgg li deson rek mooy job te je vous assure et je parle vraiment sérieusement que Ngaaka Blindé a vraiment bien bossé te liggéey boobu mu liggéey di ngeen si xam dara euh, parce que dafa leen di war a annoncer tey jii datu sortie premier volume albumam parce que deux albums la war a génne en 2020 mais première volume bi dina leen wax kañ lay génn euh, so bu fekkee jar na mu dolliwaat beneen album après 2020 mu génne ko mais il vous avait promis deux, deux albums AIDB lay tudd est-ce que ou pas qui va savoir vraiment les vraies informations concernant Gaka Blindé mais en tout cas retenez quelque chose de très primordial sur la carrière de l'artiste c'est que c'est un gosse qui est parti de rien Gaka Blindé Baba Ndiaye bokk rap la ko nit ñi xamee rap moo tax mu am audimat rap moo tax nit ñi découvrir ko rap moo tax mu am aura bu nuyuloon gars yi duñ ko xam parce que bëri na ay MCs yuy rab mais néew na MCs yu gars yi xàmmee néew na MCs yu gars yi di follow néew na MCs yu gars di bëggee néew na MCs yu gars yi di give respect ak di ko show love anytime te Ngaaka Blindé il en fait partie mën nga ëpp ko Blindé coow parce que il a de latences il a de litiges en quelque sorte ci communication mais bon tout ça c'est parce qu'il est jeune mais ndaw bu nangoo déglu ndaw bu nangoo jàng ndaw bu nangoo gëstu dafay neex a jàppale te aujourd'hui je suis prêt à vous jurer que ce que j'ai entendu ce que j'ai écouté sur l'album de Ngaaka Blindé ça va faire un une chose extraordinaire dina bett ñu bëri si déjà vécu bi dafa am lu mu dund mu relaté ko dafa am expérience bu mu jot am si rab mu per Ngaaka Blindé day taxaw si kaw seen di rap pendant quinze minutes wala dix minutes sans arrêt si beat boo xam ne mu ngi koy door dégg di improviser muy jaar de gauche à droite public bi di yuuxu c'est un homme de spectacle il a du standing euh, il a de l'aura léegi nag boo jëlee qualité yooyu mu am sur scène nga boole ko qualité bu ñu koy dëxañ ci biir studio mu liggéey ko donc ça peut ça peut donner quelque chose d'extraordinaire ça peut pondre quelque chose de d'exceptionnel donc ce que j'étais venu vous annoncer aujourd'hui mooy l'album de Ngaaka Blindé va sortir et la date vous sera communiquée dans quelques instants sur sa page et là on aimerait vraiment avoir le soutien de tout le public du hip-hop déjà sa communication est extraordinaire dama bëgg a génne nii laa koy defee nii laa koy defee donc xam ngeen ne am na liggéey bu intellectuel bu jaar derrière am na liggéey bu réfléchi boo xam ne Ngaaka Blindé s'y est vraiment penché pour joxe benn affaire bu kawe donc loolu rek bu ngeen ko déggee war na leen xam ne ci set mbir di ngeen mën a juger albumu Ngaaka Blindé ba ci titre yi muy génne dina am connotation bu xaw a doy waar ba ci live bi ñu def dina am connotation bu doy waar ndax le chiffre 7 dafa am lu bëri lu muy denc le chiffre 7 a des secrets que vous va vous révéler Ngaaka Blindé dans son album qui va sortir bientôt non non mënu ma ko joxe ma jox leen date bi donc su ma su ma amee nit ñu ne jox ñu datu album bi su fekkee am na ñu bëgg datu album bi nañ ma wax ma jox leen datu album bi ma parfum wu sax woon naa parfum wa ah. baxur baxur lay laal noonu baxur lay datu album bi kan moo ko xam datu album bi kan moo bëgg ma joxe datu album bi exactement datu album bi kan moo ko bëgg a xam kan moo bëgg a xam datu album bi datu album bi qui veut la date de l'album jox ma ok mesdames et messieurs Sénégal retenez bien ce que je vais vous dire vous allez peut-être en avoir le cœur net am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na tànduus nañ ko mais amuñu certitude déglu leen bu baax ma wax leen la date de la sortie de l'album de Ngaaka Blindé en volume 1 sortira inchallah roulement de tambour suspense on refait c'était pas bien Mesdames et messieurs, Sénégal, followers du hip-hop et mélomanes, amis fans de Ngaaka Blindé, l'album de King Baba sortira, Inch'Allah, le 7 décembre 2020. Le 7 décembre 2020, l'album sortira. léegi nag album bi naka lay tudd album bi ñaata titre mooy nekk ci biir mais on voulait juste vous annoncer aujourd'hui en primauté l'exclusivité c'est ça retenez couchez-vous avec cette information que Ngaaka Blindé ñi ko bëgg ñi koy follow ñi topp hip hop Galsen ñi nga xam ne ñoom ñooy support lu muy def ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak moom ay conviction retenez que la date de la sortie de son album c'est prévu pour le 7 décembre 2020 tant mieux Pour ceux qui avaient trouvé la date, on vous donne aujourd'hui exclusivement la date. Le 7 décembre, King Baba Hari. Voici le nouveau hashtag à mettre sur vos posts, sur vos publications. Si vous voulez dès présent soutenir la sortie de cet album, le 7 décembre 2020, Baba Hari. Baba Hariko, Baba Hari, Baba Harido, Baba Hari. Le 7 décembre 2020, Inch'Allah, Baba Hari. je suis Pape Sidi Fall pour plus de détails Ngaaka Blindé sera là pour vous informer maa ngi dem ba beneen yoon jaa ngi def mais nag euh, sama gars yi je vais vous dire une chose album Ngaaka bi nice na de non sérieusement nag déglu naa ko nice na trop trop trop trop trop j'ai écouté l'album et je vous jure que l'album ca va être du lourd, extraordinaire. Moi, j'ai vu Ngarka Blindé sur une autre dimension, beaucoup plus de virulence, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus de wow, de vibes, de mélodie. On sent qu'il y a de la recherche, on sent qu'il y a du travail derrière. Le 7 décembre, ngeen discover mais sinon turu album bi na lay tudd ah beneen énigme mu ngi noonu. ñu bàyyi tendance ci rek parce que yéen xam naa ne dem ngeen wax na IDB. mais AIBD la exactement AIBD la mais dafa am leneen lu si laxasu te ba tey génnul chiffre 7 bi le 7 décembre Ngaaka Blindé manqué pas maa fi jaaroon jaay def